di siyaare ñëpp di leen baal wax te di leen baal mm, di fàttali mbokki jullit yi ak mbokk taalibe yëpp rek ñu ngi ci waajtaayu màggalu Poroxaan ji ni ngeen ko gisee nii soxna yi nekk ci ginnaaw ah, di leeral rek ne ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul di Serigne Mountakha Bassirou ah, moo fi war a ñëw ah, le 28 ci weer bii def fi ngaru ñetti fan ba trent 30 le premier ba mu xëyee fa dem Poroxaan Euh, suñu sang bi nekk fii nag di sëñ Moussa Mbacke Abbas di jëwriñu mbala mi nga xam ne chaque année day defal ay cere yu baree bari yóbbul ko sëñ bi fële ca dëkk ba bu ko defee mu nekk cere yoo xam ne ci la gan ñi di xéewlu euh, moom ngeen gis xale yi di ko defar nii pour jàppalee ko suñu jàmbaar jooju euh, di sëriñ Moussa Mbacke Abbas nga xamante ni fii waa Touba Tabangay Arefal Yaram ñoo defar lii ngeen di gis nii. pour mën koo jàppale sëñ Moussa Mbacké di soññ suñu bopp di soññ mbokki taaliba yëpp nag ci ngan gii nga xamante nii sëñ Tuubaa sëriñ Muntaxa moo ko bëgg defal waa Kaolack ah, ñu waaj ko bu baax a baax a baax xam ne sëriñ Tuubaa fii ñëw ah, ku ci nekk bàyyi ci xel ah, waaj ko muy le 28 ba le premier kon loolu ñu ci soññ bu baax a baax mbokki taaliba yi waa Touba Tabangoy Arafaal yaram nekk ci waajtaay màggal Poroxaan ji ànd koog jullit yëpp. Euh, di ko waaj pour liggéeyalee ko sëriñ bi ñu ngi sant ñëpp nag euh, di gërëm ñëpp te ci woo ñëpp ci bis bi ñu ngi jéglu bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah